bismillaahi rahmaani rahiim rabbi srax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli bokk ñi déglu assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu asbaxnaa wa asbax almulku lillaah walhamdulillaah wa laa ilaaha illallaah wallaahu akbar allaahumma innaa nasaluka xayra maa fi hadal wa xayra maa baad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 ñaan jàmm ci réew mi ak réew bi ko wër jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si la mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak tiraanga ak poche def dara niñ koy baaxu ji defee fajaru àjjuma mooy ànd ak yéen ci ilallaahi ibaadallah ilallaahi ibaadallah di jataay yoo xam ne ñu ngi ci jublu tarbiya an nafsiya wala at tarbiyatun nafsiya nga xam ne mooy tax nit ki mën a bokk ca ña nga xam ne dégg nañ kàddug fa firru ilallah ba ñu déparee di dem ñoom ñépp ñu ànd ne ihdina siraat al mustaqim yàlla teg leen ca yoon wa nu tàmbalee dem tàmbalee defaru yeew nañu xalaat nañu gis nañu yoon wa dog nañ ko muhaasaba nañu ñu ngi toll ci taw tawba te taw ba mooy yi nga fi jot a def te du noona nga bëgg leen walbati ba mu nekk noona tolloon nañ ci tomb yu am solo mooy meññitum tuub ñu gisoon ci ne ki tuub dana ca amee njëggalu boromam dana ca amee aljanna dana ca amee imaan gu bees dana ca amee ñu walbatil ko ay ñaawteefam def koy tuyaaba dana ca amee gañe noon bi nga xam ne moom dong la am ci noon te mooy iblis dana ca amee gañe bakkanam bi nga xam ne mooy al bi suu dana ca amee xol bu nangul yàlla dana ca ame yàlla bëgg ko waaye dana ci ame yàlla bég ci moom ñu bi woon beneen tomb nag muy yiy teree tuub dafa am yoo xam mooy tënk nit ba tuub du ko yomb walla boo moytuwul du tuub li ñu tuddee almawaaniu min at tawba ñu gisoon ci tomb yooyu nga xam ni mooy tombi yiitee tuub ba ci jiitu mooy doyadal doyadal bàkkaar doyadal bàkkaar mooy xeeb bàkkaar bi ak ne ah bi may def biddiw defe ko gën a garaaw waaw loolu mooy doyadal bàkkaar seytaane moo koy def nit ba nga jàpp ne yow bi ngay def a ngi def bu ko gën a garaaw mu tax léeg-léeg bu ñu la laajeeb laaj ci yu mel noonu mu tiit loola waaw ne la dama amub laaj nga ne waaw mu ne acc mu ne njaaloo ak naan sàngara bu ci gën a garaaw wala naan sàngaraag rëy nit bu ci gën a garaaw wala sàcc ak àddu kalbe bu ci gën a garaaw laaj yooyu bu tontu la ne bàkkaar sàngam moo gën a garaaw day jural nit ki mu doyadal kon bàkkaar sàngam waaw loolu moo tax laaj yooyu ci doxful imaan la bokk wareesu di ko laaj bàkkaar sàngam ak bàkkaar sàngam bu ci gën a rëy buñ la waxee bi gën a rëy seytaane xeeb loola bëgg na tuuti te loolu laaj boobu mooy indi al istihaana bi dunub te mooy doyadal bàkkaar jàpp ne kon bàkkaar bi eh, ginnaaw bee ko gën a rëy nangam nangam bu ko defee seetaan ne la kon bii moom garaawut rekk yàgg moom ba la yàlla xam doy na ginnaaw boobu gisoon nañ ci bunt boobu toolul amal toolul amal mooy koo xam ne kii jàpp na ne faatoogul léegi waaw koo xam ne jàpp na ne moom faatoogul léegi mu jàpp ne ki faatu moo war a tuub walla ki doon mag moo war a tuub loolu tam seytaan dana ci liggéey nga doon ab jànq toll ci di gis baax war a muur say cër seytaane jàpp ne boo ko defee dangay ngay doon mag dangaa goog nga daal di bàyyi yooya fas yéene làng ca làngoog gone ya te xamoo ba xam danga làngi ca làngoog mag ñam déet yaag seytaane ba mu xëy rek na la Euh, ba jib malaaka mi xëy rek na la kaay wuyu waaw loolu seetaan yi daf ci liggéey liggéey yu rëy xale yu góor yi dina leen ko def xale yu jigéen yi dina leen ko def wan la daal yow daal jógagoo fi léegi ndax gone nga benn ñaaral ba dara jotu la mel ni ku doon gone dara jotu ko du fi jóg sëriñ Shuayb bu ca téereem ba ba mu tollee ci buntub tuub radiallahu taala anhu daf caa wax ne tuub war na mag war na ndaw war na góor war na jigéen ñu ne ha mu ne ndax gone dana faatu mag dana faatu góor dana faatu jigéen dana faatu waaw tabaarakallahu di bunt bu am solo ci téere ba na bunt yépp amee solo kon ci yiy tee tuub tomb boobu ci la bokk te mooy tóolul amal jàpp na daal yow da nga fi nekk xam naa peut-être ba l'an deux mille nangam nangam rek waaw yaxsabu anna maalahu axlada kon loolu nit moo ci war a yeewu moo tax boroom xam-xam yi di ci yeete yeete ci ba nit bum jàpp loolu jàpp na daal danga fi yàgg kon nag soo demee ba doon mag nga daal di tuub e ndaw <laughs> waaw waru suñ mbakki si la e ndaw waaw mu ngoog ko defee nga gis ab jànq ba koo muur looy cëram mu ne mukk waaw gone la nga gis xale bu góor ba koo toppaloo boromam mu ne mukk gone la seetaan naan la gone nga gone nga gone nga ba nga xëy doon mag yi nga mënutoon ci bi ngay gone nag nga doon mag mu tëla ticc mu tëla ticc sunu xarit ba sunu sëriñ bi xaaj abdul aziz al amin daana faral di wax lu baree bari ci ay waxtaanam loo nekkul ndongoom doo nekk sëriñam waaw loo nekkul ndongoom doo nekk sëriñam sàllaaw léeg-léeg nga julli ci jàkka yi ak jumaa yi gis mag muy jullee façon boo xam ne danga xam ne kii dëgg la ñëw na waaye bi mu ñëwee yàggut bu ñëwoon ci ba muy ndaw du jullee nii bu ñëwoon ci ba muy ndaw du toogee nii bu ñëwoon ci ba muy ndaw du waxe nii waaw ndeysaan suñu waxtaan waa góor gi koyta ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm te waaye fal ci koom kon ñaari tomb yooyu dafa bokk ci liy tee nit tuub mooy doyadal bàkkaar ak yaakaar na danga fi yàgg hmm? waaw yaakaar na danga fi yàgg nga bëgg xaaj dund gi ñaar xaajug sabiyen sabiyen nga bëgg koo doxal muy sag ndaw waaye jàpp ne soo nekkee mag nag daal di tuub wut sa kurus wut sa sajaada daal ànd ci groupe mag ñi loolu ëpp naa def de <laughs> seytaani baaxut seytaani baaxut de waaw tomb yooyu dafee jaaroon kon mbokk yi nu ñëw ci ñetteelu tomb bi te mooy yiitee tuub bu yi def cee mbokk mooy al ittikaalu ala aduwi wala al afwi al ilahi al alu afwi al ilahi koo xam ne kii fu neexe jëm ci njëggal mu jël fu safe jëm ci safaan mu teggi waaw borom baa ngi wax yaxusuuna arada hadal adna wa yaquluuna sa yuxfaru lana waaw yàlla nee na am na ñoo xam ne ci loolu la ñuy dox ba demee ca la araaf aaya 169 nee na am na ñoo xam ne ci yooyu la ñuy dox yaxusuuna arada hadal adna jël àdduna waaw àdduna lañu jël rek muy seen programme fexe ba àdduna jag waaw nañu am ay oto nañu am ay kër nañu am aw tur nañu am ay poste nañu am nàngam rek soo ne waaw ñu ne la jërul waaw kat waaw sa yuux faru la waaw sa yuuxu faru la naa dana ñu jéggulul sa yuux sa yuux faru la danañu jëggal waaw rek foofu nag sukkandiku googu nit kuy sukkandiku ci mébét yi di sukkandiku ci njëggalug borom bi sukkandiku goo xam ne du ànd ak jëf loolu mën naa indil nit ki waru waaw ndax ki nga xam ne dafa sukkandiku ci njëggalu borom bi waaye du jëf lu koy may njëggal ga waaw ban ban garantie la am ba wax mu ne sa yuxfaru la naa ban garantie la am waaw loolooy yëf yi te it wala yastaxifannaka alladina laa yuuxinuun sunu borom nee na bis boo nangoo ñu woyofalal la ko falal nañ la lu diis waaw bis boo nangoo ñu falal la ko ndax foo xam ne booy dem sa mbokk yépp ay jooy dëkk boo xam ne booy dem sa mbokk yépp ay jooy ñu wutal la yére yu weex tàll yu bees tàq léeg-léeg sang la ba nga set xeeñal la parfum sàng la daa di jël meneen mbalaan teg ci sa kaw teg la ciw dénk ŋàbbu ñëw ba ci kanam ilimaan ñu teg la fa ilimaan jabbutu ba mu neex ko rek mu ne jël leen ilimaan jabbutu ba mu neex ko rek mu ne jël leen say mbokk jël teg ca oto ba bu fekkee fa nga jëm sa sa fa jëm sori na bu soriwul ñu yenu dem ba ca fenn ñu gasum pax pax mu xóot loo taaru taaru taaru loo am am ndomb tànk loo siiw siiw siiw àdduna si yépp xam la Hmm? adduna si yëpp xam na waaye du tee rek bés bi ñëw rek kon bés boobu sukkandiku ci ne sa yox faru la naa sunu borom ne garanti boobu daal waroon nañoo xam kan moo ko garanti la nit ba tax mu bëgg wax loolu te kat suñu réew mi nu nekk njàng mu bare ngi ci bi ñu duggee deux mille vingt ak léegi bi ñu duggee deux mille vingt ak léegi nun ñépp nañ def ab liste waxuma ñi fi génn àdduna te xamuñu leen waaw ndax càlle mbay faati génn fa àdduna bokk ak nogay bàyyi waaye siiwut siiwut am na ñoo xam ne ko dem tey lañ ma sa dégg mbay faati waaye am na ñoo xam ne ci 2020 bii koo ci tudd la ko xam ci réew mi moo ëpp la ko réere la ko xam ci réew mi moo ëpp la ko réere wala ñu ko xam tabarkal la waaye mbokkum na koy mii génn àdduna Haj Malik Maodo Faye nee na ñi ko xam boo leen sóoraloon liibarub ceeb du jeex yàlla na ko la koy jàngalee mbokk yi yërmande yàlla lu yaatu la loolu kenn wérantewu ko yërmande yàlla àgg na fu ne kenn wérantewu ko fi àgg fu dégg nga mu ne rabbana wasiata kulla shay'in rahmatan wa ilma loolu alxuraan la man ca xaafir rabbanaa yow sunu borom wasita kull euh, wasita kull sheyin rahmatan wa ilma sa yërmandeeg sa xam-xam àgg na fu ne àgg na fu ne waaw waaye wax na ne qaala adaabi usiibu bihi man ashaau wa rahmati wasiat kulla shay sama mbugal damay mbugal ku ma neex ñu ne waaw mu ne sama mën na ñépp a ci xaj sama mbugal ñu ne ah, mu ne damay mbugal ku ma neex waaye sama yërmande ñépp a ci xaj la araaf la ko wax aaya téeméeri juróom fukk ak juróom benn maa ci ilallaahi ibadallah niñ koy defee fajaru ajjuma tabarkalla xam naa léegi tey incha allah bu nu yàlla baaxee nu àgg ci suratu daariyaat fi borom bi waxee fa firru ilallah ndeysaan mu ngoog waaw kon mbuga mbugal ma nee na usibu bihi man asha yërmande ga nee na wasiat kulla shay waaye daf caa teg nag lu am solo loo xam ne man mii di wax ak yéen ñiy déglu ci tomb xam-xam bi defar baatinu nit muy tomb tarbiya arruxiya sunu borom daf caa wax ne fasa aktubuha fa sa aktubuhaa lillazina yattaquuna wa yutuuna zaka wallazina hum bi ayatina yuminuun allazina yattabicuuna arrasula annabiya al ummiy ndeysaan yàlla na ci bokk ngeen bokk ci daf na yërmandeem jooju danaa ko beral fa sa aktubuhaa danaa ko beral ñoo koy beral allazina yattaquun waaw ñi ko ragal di jëfe ay ndigalam tey bàyyi terem ah mu ne ñu laa koy jagleel fa sa aktubuha waaw list ba daal ña cay nekk mooy allazina yattaquun mooy ña ko ragal yàlla na ci bokk ngeen bokk ci benn wa yutuna zaka ñuy joxe azaka wa yutuuna zaka ñuy joxe azaka génne azaka nag joxe azaka da ko gën a jafe moo tax alxuraan di wax rek ñu joxe azaka génne ko ba noppi jox ko ñañ ko war a jox buñ ko xamul yëkkati ko jox ko ku leen ca tane jàpp seen jàmbur waaw ngoog waaw fa sa aktubuha lillazina yattaquuna wa na zaka waaw moo tax ñoom imaam Ismaila euh, Njaay te bokk ci ligue des imams ñu am mbooloo moo xam ne ña nga ca loola di ca jéem waaw ña nga ca loola di ci jéem mooy xaymaal nit ñi seen azaka waaw génneel leen ko joxeel leen ko loolu boroom xam-xam yu bari ñoom tam ñu nga cay liggéey ala kulli xaal sunu boroom maa ngi ci buntub liitee tuub wax naa ci xeeb bàkkaar doyadal ko wax naa ci mébét yu gudd yu jàpp ne doo fi jóg léegi ma toll ci ñetteelu tomb bi te mooy wéeru ci mébéti njëggali sunu borom yi buñ la waxee rek nga ne su yox faru la na daan nu baal ma toll ci lay ji kon sunu borom ne fasa ak aktubuha lillazina yattaquun danaa ko jagleel ñi nga xam ne ñoo ma ragal wa yu'tuuna zaka tey joxe azaka waaw lañu am dañ cay dompi jox seeni bokk wala bokk dañ koy bokk ak seeni bokk muy ñaar wala zinahum bi na yuminuun ak ñi gëm alquran ak ñi gëm ayaat yi ñi gëm màndarga yi wane ne yàlla yàlla yañ cay gis ñu gëm ko yañ cay dégg ñu gëm ko ndeysaan mu ne nag nga ne ko waaw ñooñu ñana ñooñu day su ma xëyee ca ñoom laa bëgg dem waaw yow mi déglu ak man mii ñu ne ah waaw ñooñu nga xam ne yattaquuna yu'tuuna zakka yu'minuuna ñu ñana ne jar naa laaj jar naa laaj allazina rasul mooy ñi topp yonent bi mu def ñi nag alif laam ar ñi topp yonent bi muhammadun sallallahu alayhi wa sallam mu luy dàkkantalam mu ne annabiyal ummi allahu akbar mooy yonent ba nga xam ne illettré la annabi al ummi yonent bi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam <laughs> munta bind munta maas munta bind français alayhi salaatu salaam munta bind anglais waxum lay chinois ak mbindum Inde mbind yu jaxasoo yooyu alayhi salaatu salaam mbindum arab sax mënu koo bind loolu nag aw tagg la ci moom aw xas la ci nun waaw aw xas la ci ma ci ci ci nun aw tagg la ci moom allazina yattabi'una rasula annabiya al ummiy ah kon bunta ngu noonu bu am solo boo xam ne ku ci nekk dootoo wéerooti ji rek ci ay mébéti njëggal al ilahi da ngay jéem a jëf waaw inna raxmatallahi qarib inna raxmatallahi qarib ñun ñépp nu ndeysaan siggi xool mu ne minal muhsinin mu yéen waaw inna raxmatallahi yërmande yàlla qarib ku tàllal sa loxo jot ko ak jege waaye nag ñan la jege minal muhsinin ñiy def lu rafet di wax lu rafet di jëf lu rafet waaw ba yàlla may leen noppi garmi gémmiñi garmi minal muhsinina yàlla nañ bokk ci noonu ndax nu bénéficié wu ci rahmatullahi gi nga xam ne xaribun tabaarakallahu minal muhsinina mbokk yi yàlla jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot yàlla nañ bokk yenn lu ci jàmm dégg jàmm dégg lees ñu jàmm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 in uridu illa al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu